boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo ko jullikaayu ayit bi ci Touba ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Basir ibnu sëriñ Abdul Xaadir mi sëriñ bi def muy jëw jëwriñu comité d'organisation bi tam yor kàddoom ak kilifa yu baax yi mu àndal te bokk ci seen biir it ndawi sëriñ Mouhamadul Xabbaan mu Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk lu jëm ci wàllu njàngum alquran kon ñu di leen nuyu di leen wax marhaban ahlan wa sahlan ci barab bii sëriñ bi di jégglu bëgg koo def niñ ko defe woon daaw waxtu wi xat na waaye dañoo bëgg ubbee jataay bi kaamil boo xam ne lu mu yàgg-yàgg ñaari nit ñett insha allahu taala kon yéen gone yi ñu waxoon ñu tari ko yéen ñëpp jóg leen taxaw kenn ku nekk daal di tari liñ ko joxoon su sama fatiha daanoo kenn ku nekk na tari fexe ba bu guddee ba gudd na doon ñaari minutes programme yi nga xam ne tàbbi na ci biir te Cheikh Mouhamadul Xabbaan soññee ko muy ci buntu kër Serigne Fadilu mbaaru Hizbut Tarqiyyah bu mag bi fi nekk dëkk bépp bis bu nekk ñu boole nangami quartier woo leen fa li tàmbalee ci benn fanu safar ba fukki fan juróom ci safar diggante boobu yi bis ba gën a néew luñ fa jàng ci ay kaamil mooy téeméeri kaamil ak juróom-ñeent fukk ak juróom ba am na bis yoo xam ne jéggi na juróom benn téeméeri kaamil moo tax limub lañ fa jàng àgg na ci ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci ay kaamil lo ci biir loola yi tàbbi na ca alximis yoo xam ne dañ doon tari gone yi dañ doon ñëw di tari du woon jàng waaye tari la woon ci ñaari alximis yooyu Euh, mbooloo mi déglu nañ ci dongo yi ñu tari suñ boolee ñaari alxamis yi li ca tari tañ defaral gu leen seeni sahaada ba mu noppi te nekk nii ñu différencier ko ba ci li ci biir ñetti téeméer ak juróom fukki gone ak ñaar tari nañ ci alxuraan bañ defaral leen ay sahaada am na ñoo xam ne seeni sahaada noppi dañu nekk ci ay correction waaye yi noppi ba teew nii sa kanam tañ bëgg nga tàmbali joxe bi mooy ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar tari nañ ci ñaari alxamis xay na so liñ ko yeex a tàmbali waaye su fekkoon teel naa tàmbali jàpp nañu ne sax danañ ci gën a waxtaanaat ak kilifa yi suñu weesoo màggal suñ ko mënee alxamis ji ñu jàpp ca jenn joo xam ne weer wu nekk ñu jàpp ca alxamis joo xam ne lu mel noonu lay doon bañ àggaat màggal su boobaa mel na ne limba dana fullawu lool ndax li mokkal alxuraan ci dëkk moom kenn mënu koo natt mëneesu koo ndax ñaari alxamis ku ca mën a tari ñeenti téeméer yu ci tuuti te ñaari alxamis rek la alxamis ji mujj ci muharram ak alxamis ji jëkk ci safar mbooloo mii ngeen gis ci lañ tari ñoo nekk nii ñoo daan tari kaamil bii kaamil bi dañ koo jéem a barkeeloo rek ci sëñ Tuubaa alxuraan yaakaaruma ne liñ ko dégg feneen bari na kaamil bu ñuy wàccee ci ñaari minute gone yii ko doon tari bu ci kenn jaaxle gone yii ñoom lañu yóbboon ci mbaar mi suba teel ñu tàmbali fatiha ñu ci bari balaa nëga ni mi dem nañ mi na jinnati wanaas xam nga kooku boo ko taxawaloo fii tariloo ko benn misif ki xamut lu mu doon dafa koy yéem waaye ki ko xam moom suñ su su ko woon mën nañ fee tari kaamil yu dul jeex loolu la suñ borom defal sëriñ bi ci dëkk bi kon loolu it mu dolli ko wàcc loolu tëj nañu ko bërk démb fan ak juróom yi mu dolli ku ca tey jii bi ñu xëyee la ñu xëy si fii ànd ak gone yooyu doon tari ak sëñ daara yi ci suba ba nëga ni ñi ngi fi di wàcce ay kaamil bi ngeen agsee nii dañuy daggandi wàcce boobu ngeen joxe sahaada yi nga xam ne ci turu xalif général des lañ ko def ngeen joxeel ko joxal ko ko njaboot ji su ngeen noppee ba delluwaat yeneen yitte ya am na programme bu ñu tëral fii ba gaawu gaawu ba ñu julli suba ba noppi bu ñu fanaanee màggal ajjuma ji ba bët set ci gaawu bi bu ñu jullee suba door a xatma ni ñu ko tërale mooy xam naa séeséer lañ waxoon ndax dañoo defoon ne jataay bi dina gën a teel tuuti waaye wax bu ngeen fi bàyyi koo rek am na ñoo xam ne ci séeséer ji lañ leen woo ci suba gi dañ leen ne woon man ngeen a noppalu lu ma toujours waa ànd moo lay daal ñetti téeméeri kaay yi seen daaw di fi teew waa ko si Moxtaar bi te ñooy mel ne moom lépp lu des yàlla rek day koy yàlla dajale jël ba yaram ñooñu dañ leen a tànn tudd leen ñu gënoon ci des waaye kaay yi si tubaab yi ak bokk bi yi ñëpp wuyu leen ci amam lu mu xalaat di wàllu seen tubaab yi ngir ànd ak moom ci alxuraan yi ñuy ñaan si borom nangul ñëpp mbooleem li nga xam ne def nañ ko ak liñ ci suñu borom mottali ko tàbbal ko ci biir liggéeyu sëñ Tuubaa bu nangu boobee donc yeneen benn bëgg rek lañ ci am mooy sëriñ bi yàlla ci am bëggam kon ginnaaw waxtu yi dafa xaw a gudd dañuy taxaw lu xool jox sëriñ Moustapha ak sëriñ Mahmouda moom it nii ñu amee taxawaay ci alquran yi noonu la ko amee ci asili yi gis nga sëriñ Dame Thiam moom it daal béy si taxalee ba léegi nii ci taxaw te na nga jàppee woon ca cosaan ba béy ji daal sotti bu ah mu ngi rek ñu ànd toog ñoom xanaa bu ñuy fekk rek wax ne diiru dañuy nekk ca baax yi ci baax la suuf tafee ñoom seen taxawaay dara lañ ko jëloon mais dafa doon fekk mbooloo ma leen taxaw ñu leen war a taxawoo naka la ñu waxee ak yaas bi nga xam ne ñooy taxaw fii tamit desaay la ñu ngi taxaw taxawaay yu ma sën ñu ngi ñaan suñu borom boole ñu nangu ñu ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant yi Sëriñ Tuubaa ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te wér ba lépp lu mu yéenee liggéeyal sëriñ bi mu mottali ko ci sago ak kàttan di nuyu it Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir moom mi xam ne moo jiite liggéeyu màggal gi te teewal fi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di nuyu bokk yi mu àndal yëpp di nuyu yëpp sëriñ Xaadi Jaxate ni ma ko waxee léegi rek di sant ci taxawaay yi ak ñi nga xamee ne ñoom lañu àndal liggéey bi sëñ Ndongo Caam mi ngi nii toog ak eh, sëriñ Cheikh Dia ak mboolem kuréeli xasida yi ni ma ko waxee rek la yóbbaale njàngum xaside yi ndax benn liggéey la benn programme la it ni ñu ko tàmbalee tey noonu lañu ñu koy wéyale ba ginnaaw suba buñ jullee fajar bu noppi na ma ko daa waxee rek di am mbégte bu baax a baax a baax tey santal Sëriñ ndax euh, Sëriñ Tuubaa moom lépp loo xam ne nii dafa jëm ci liggéeyal ko bu la yàlla defalee tawféex ba nga mën caa bokk loola ndimbal la euh, tawféex la ndax Sëriñ Tuubaa euh, day koo xam ne ñemewul bor waaye dafa am bay te lépp lu ko waaye defal lu mu néew néew mu fay la lu kawe jot ndax jëfam noonu la toll ngoram it noonu la toll eh, kattanam it noonu la toll di ñaanal Cheikh Modou Bachir moom mi nga xam ne moo yee moo jiite liggéey bi yàlla defal ko kattan ba lépp lu mu ci yéene mu mën ko mottali ndax taxawaayam eh, rafet na yaatu na te it matale na kenn ku nekk dangay ngay defe ne wet ga nga nekk rek ab taxawaayam fa la gën a fis kon loolu ñu ngi koy bàyyi xel bu baax te di ko ñaanal ci liggéey bi yàlla mottali ko ko xanaa di waxaat rek ci màggal màggal moom day loo xam ne murid bu nekk mooy bis bi gën a rëy ci yow ndax Sëriñ Tuubaa liggéeyam bi li muy màgg màgg li muy bari bari nga xam ne ba mu jógee Mbàkke bari ba ni mu ñëwee njaareem mësu la wax kenn nekkaay defal ma dara ci ab liggéeyam bi mu toogee ba lépp sotti leen rek la woote mooy sant la ko euh, sunu borom kon nag ku am ku toll ni sëriñ bi euh, santu la lu dul lenn loolee war nga caa def loo man ak loo mënut te muy bis boo xam ne lépp lu ci waay def day delluwaat ci yow rek ndax nu ci waay jëfe rek noonee la cay jariñoo ni ko sëriñ Saliou Mbacke waxe woon te sëriñ Touba waxoon ko ne fu fi ñaar dend kii di ko fonk ka ca des du ko fonk mm. ka koy fonk bu ñàkk di gis lu muy tanee ka ko dul fonk ba faw mm. te bis la boo xam ne sunu boroom da ko may sëriñ bi nangul ko ko ba muy àdduna di ëllëg mm. amul senn saa soo xam ne nii bis bi maanaam du da koy dolliku di ko gën a jëm ci kanam ba tey sëriñ bi ñu nga ko waxee woon ne ëllëg day bu ñu demee àjjana àjjana amul libis bis ak weer mm-hmm. waaye màggal gi saa bu dellusee mm-hmm. àjjana dana soppikuwaat ba ko nekk xam ne tey ji la màggal la mm-hmm. kon loolu ma yëg sunu borom la nanu ko xam te jàpp ko te fonk ko ak sunu fukki loxo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi alqaa'il fi muhkami tanziilihi wa izaa quri'a alqur'aanu fastami'uu lahu wa ansituu la'allakum turhamuun wa izaa qara'ta alqur'aana ja'alnaa baynaka wa bayna allaziina laa yu'minuuna bil aaxirati hijaaban mastuuraa iqra' kitaabaka kafaa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiiban wa salaatu wa salaamu alaa ashrafil mursaliin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin bokk julli yi fi teew yëpp bokki taalibe yi ñu ngi di jottali kàddu yu nuyoo kàddu ak i gërëm yu bàyyi ko ci ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa bi al Cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahu llahu taala wa raxaahu wa ayyadahu wa saadahu wa nasarahu jëme ci bokk jaan jullit ak bokk taalib yi ci liggéeyam bu màgg bi nga xam ne dara gënu ko ñor ci màggal bi te ngeen xam ne pàggatiku Sëriñ Tuubaa la bu ngeen am tawféex yi nekk ci biir kon ñu yóbbante Sëriñ Abdou Fatah mu Cheikh Sëriñ Mahamadou Xabaat mu Cheikh Mahamadou Farid ci yitte ak taxawaay bi nga xam ne bi diggante accès ci moom ànd na ko bokk taalib bi yëpp ànd ko waa daayira Hizbut Tarqiyyah waaye ànd ko ñëpp ba liggéey gën a kawe bu baax di sant bu baax sëriñ Moustapha Mbacke sëriñ Mouhamadou Diop ñu ma ko daa seerale rek man lu dafa Sëriñ Tuubaa laay xool ci biir moom nag dafa am tawfeex addi sëriñ Saliou Diouf yëpp bisu àll bu ne danaa ànd ak waa këram ci keroog sëriñ bi jàng xasida ma fekk ko loolu kenn nit ñi kon bu yàlla defee liggéey moom tam day jamono Cheikh Mouhamadou Bara ñu jox ko ndigal moom ci yitte ëpp taxawaay du ma ko soñ du ma ko fàttali lu weesu bu jege see rek ma ne ko mbaa fàttewul sa ndigal mu di ci def doole di ci def wërsëgam di ci def xalaat di ci kattanam kon nag na gëm ni rek liggéeyam ba nga xam ne maam ci tëdd Cheikh Massamba Serigne Touba féetewul ko lu bari ci xasida yi ndax li ci ëpp nit ñi sax dañuy wax ne lu suñ baax bind moo ko maas waaye dañoo war a wax lu sëñ bi bind moo ko sotti parce que bu suñ tubaab wax ni bëgg mu àndi ci taal bi daa ma sàmm sotti bu bopp bi ndax mbirum sëñ bi yaakaar naa boo ko xoolee nga gis yu ñu wax bëriwul waaye lu mas a bind nag moom la ko jox nga ko jox ko fere mooy jàngati xasida yi suñu ma sàmm moo ko day nekk suñu saa demee léegi xam naa fa la ko bu sëñ bi dee tëdd dana ma sàmm bisimilah inna allaha maana ñu taw ndax ñu torob alamin kon daa dem suñ ma sàmm itam ñu dàqoon a jàng xasida yi moo daal di fu mu gis ak baatam neex mu andi ci sëñ Tuubaa ngir dàq boobu sëñ dooloon jëwriñ bi ci biir kër sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Faye moo dooloon jëwriñ ci sëriñ bi ci yoon waaye Cheikh moo doon jëwriñ ci sëriñ bi ci topp yoon ba kon dañuy gën a xay ci moom te dafa jot ci liggéey Sëñ Tuubaa noonu ndax li tax ñu xam ne Sëñ Tuubaa noonu ko mooy pëstéef ak yitte ak ko ci kanam kon dañ koy ñaanal yàlla bu amul loolu nag dafa ñëw dara ko gàllankoor ba li bëgg liggéey Sëñ Tuubaa am naa ko sëñ Xaali Jaxate yow itam ñu ngi lay sant wax ñu dëgg ndax Sëñ Tuubaa yaa rek bu seq alxuraan xasida alxuraan àllam ndax ku gis lii fi xew yéen amaguñ ci at benn bi ni njàng ñaari kat waaye la loola dafa teel ci le sëñ bi daal rek xëy na ci yaari bis ne nañu wax bindal kaame ci bi balaa tisbaar waaw def na ko ay yoon ku ci mbaaru Cheikh jàng fa lu jege juróomi junniy kaame loolu xam nga ne bëriwul moom ci àdduna barab bi daaw bi ñu xoolee li ñu fi jàng mën na fukki junni kaw te bokk sa ni ñu jàng ci kër yi te loolu ak fuuf bokk ak li ñu jàng ci adduna si te loolu ak fuuf romb na kon nag loolu day wane ne Sëriñ Tuubaa li mu wax ne man la këneel Qur'aan sam di ka njëriñ loolu kenn nattal bi jëf junne faa nga joo xam ne ku xoolee dañ ci des ba kon suñ xaalis yow tamit ñu ngi la ñaanal sa pour sa xawaay bi nga am ci liggéey bi yàlla wala suñ daara rek bàyyi wu dara képp koo xam ne yaa ngi ci ñëw ngir dàq ci bëgg Sëriñ Tuubaa dàq ku fi nekk Sëriñ Tuubaa da ngaa xam ne day ñëw ngeen te képp koo xam ne yaa ngi sonn ci màggal karab ngir dàq bëggum Sëriñ Tuubaa da ngaa xam ne yéen seenu dàq bis bii di màggal bi kat Sëriñ Abdou Khadre daa dégg ci laam mu nett ne Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa ko ba ne ko ñaare moom ca am na sax lépp lu xew lu mën a doon muy màggal di tabaski di tamxarit di gàmm di koor di koy lu ko def ful Tuubaa si ñun Moussa moo ko ne ko sa baay bi nee na ma jaamu yàlla de baax na fa ne waaye sakkaneen tu ma ne fa màggal ji itam sa baay nee ma ba ndee ba ëllëgët si biir ajjana ay bis amu fa waaye suñu borom ca kattanam nag waxtu moom daa jot ci àdduna xam na ko borsee nag kenn ku ne da nga yëg xéwal bu dolli ko ci wax màggal bi kon màggal gi ma xanaa fàttali rek waaye kenn du soññ kenn ndax la ma waxoon rek suñu saaliw néew na màggal gi moom lu yomb organisé ndax kenn taalibe bu waaye dana fexe ba këram rek te jàpp naa def nekk lu jamono xat-xat du yëg màggalu Sëriñ Tuubaa gi ji ku ne xam ne fi àdduna toll ci kiris waaye Sëriñ Tuubaa dafa wax ne wala si waay yéen tax yi deexul sama kon kuy defee bi sëpp sa bis sa bis ma maa ngi sant nag sama mbokk yu tedd yi nga xam ne at bu jot ñooy ànd liggéey bi ci posture ak taxawaay xam ne seen bopp la ñuy jëfal xam ne suñ tubaab la waa jëfal waaye ñu di ko jëfe ci yéene ak posture bu mat sëriñ Abdou Lahad Mbacke Baara ñu sant bu baax ndax lii 2010 ba nag ni ñoo koy andi ñëw fii ci posture moo taxawaay fan yëpp sax dafa amoon ko wàññi moo tax ñu jéggal ko taxawaay waaye tey nag dañoo xam ne mbir la moo xam ne mënta nekk moo tax ñu ko sëriñ Abdou Lahad Mbacke Baara ñu sant bu baax ndax màggat ji nee naa ko màggal gën a sonn nga ci waaye ren jii nag dafa takkaat laxasaayam takkaat yitteem taxawaay taxawaay bu ma sëkk boo xam ne liggéeyu màggal bi fu mu àgg yokk na ci lu bëri bëri yokk na ci xalaat yokk ci gën a nosu yokk na ci gën a organisé yokk na sonn ci ngir màggal bi mel ni ko sëriñ ba yaakaar naa incha allah ba taxawaay boobu yëg waaye xam nañ ne yéene ñu dama tax mu def ko waaye jëmmi Sëriñ Tuubaa mu def ko kon nag ñu ngi koy ci barke Sëriñ Tuubaa yal na ko Sëriñ Tuubaa ko Sëriñ Tuubaa xanaa ñu yemale foofu kàddu yi ñu ji di takkusaan bu noppee ñu jàngee moom naa sukkoora la si bu ko defee ma diglu ko rek ñu lay tàggoo ñaan bàyyi ji suñu xaari jaate ak suñu saa ñoom ñu àggal jàngee mooy arrière yaa may moo ginnaaw ngeen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo